jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi amaat nañu mbégte ci beneen numéro urgence di am taxaw seetlu comme ni ñu koy defee saa su nekk ci li nga xamante ni daf leen di soxal ni ki tey dañu bëgg am taxaw seetlu ndaxte ñu ngi wax cow loo xamante ni dafa jëm ci feebar buñ naan dafa bees ci ñi nga xamante ni tey ñoo di askan wi waaye tamit ci ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram coronavirus lañ koy wax mu ngi yeewi ko ci fi nga xamante ni moo di réewum jamono ji ñuy wax ak yéen daanaka ci li ñu mën a wàññi ci lim ëpp na junni ak lu teg ci loo xamante ni ay bakkan yu ci faatu la waaye tamit ñu wax ni ci ñi nga xamante ni tey ñi ngeeg doomi jàngoro jooju noonu muy xël di wéy ci ñoom it dafay gën di takku lan moo ci nekk ñu ni épidémie boo xamante ni taxaw na OMS addu ci def benn alerte international mu concerné réew yi kenn ku ci nekk tey war a am noo taxawee réewum Sénégal la ñu nekk li nga xamante ni moo di laaj bi moo di est-ce que tey am nañu système bu nga xamante ni pare nañu pour def euh, fas éventuelle catastrophe yi nga xamante ni day am wala épidémie yi nga xamante ni dafay déclaré wu loolu mbokk yi dinañ ci am lu leer ci kanam tuuti dañuy dalal docteur Amadou Alpha Sall nekk administrateur institut Pasteur de Dakar bëgg nañu ci waxtaan wi buñ ci jógee tey ñu mën a xam li nga xamante ni tey mooy tolluwaay bi ñuy natt ci wàllu bi nga xamante ni moo di gëstu waaye xam ci li nga xamante ni institut Pasteur mi ngi koy def waaye prétexte bi yëpp actualité la docteur maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di la gërëm di la sant euh, ci émission bi ngeen la dalal. Mhm. di la remercier itam ni nga ñëw seet suñu tey fii institut Pasteur. Mhm. alors docteur institut Pasteur suñu juumul nga doon sénégalais bu njëkk bi nga xamante ni yow la ñu teg ci bopp bi ginnaaw ay at nag yoo xamante ni am na. waaw loolu dëgg la institut Pasteur bi mu amee ba tey euh, ñëpp ay tubaab rek ñoo ko daan jiite. Mhm. yàlla def ñetti at ci gannaaw euh, ñu tàbb ma fii pour ma yore kër gi. Mhm. laata ñuy ñëw actualité li coronavirus ak li nga xamante ni tey mooy épidémie ak li institut Pasteur di def mission yi lan la d'abord. waaw institut Pasteur foo ko dégg ci àdduna parce que ñoo ngi ci juróom surtout ñaar fukki dëkk ak juróom-benn. Mhm. foo ko gis artiste dafa am ñeent yoo xam ne da koy def toujours benn bi mooy wàllu gëstu mooy recherche tubaab ñaareel ba mooy lépp luy yëngatu ci wàllu santé publique maanaam feebar buy law di dal ni ñu bare. Mhm. stupate de si ñetteel ba moo di nii di tàggat. Mhm. nit ñi ci wàllu recherche ci wàllu xam-xam bu jëm ci wàllu médecine. ñeenteel bi mooy souvent nag li ñuy wax expertise maanaam xam-xam bu màcc ci yéen boo xoolee lu mel ne dëkk mel ne Sénégal. Mhm. Institut Pasteur day def par exemple lu dem production de vaccin loolu lu am solo la. expertise bu raar la ndax boo wëree Afrique yëpp ñun rek ñoo fi mën si Sénégal defar vaccin boo xam ne li mu ko jaay ci àdduna li mu OMS autorisé. Mhm. alors loolu dinañ ci dellu si waat taxaw seetlu la parce que gën nañu te xam nañu ni réew yi Afrique yi rawatina Sénégal bi ñu nekk ngir nag ñu mën a téye seen système de santé mu doon loo xamante ni du nasax. mu doon loo xamante ni dafay am doole il faut que tey réew yooyu noonu expertise locale bi fa nekk ñu gën leen a dooleel li koy développé jox leen outil mu doon des moyens plateau technique boo xamante ni dafay adéquat mais ngoog jamono de sorte que tey li nga xamante ni dañ koy soxla ci réew yooyu noonu réponse bi di mën a doon loo xamante ni day gaaw lu ko mooy dañuy dem di jëli leneen loo xamante ni ci yeneen i réew lañ koy jëlee divise la buy génn waaye tamit jafe-jafe lay doon ci coût financier bi nga xamante ni day posé docteur Sall tey actualité bi dafa dem ci coronavirus heure bi nga xamante ni ñu ngi ciy wax ak yow yan information de dernière minute nga ci am. waaw information yi ma ci am rek mooy wax nga ko sànq ñu euh, bakkan yi si rot bare na ëpp na junni euh, tey boo xoolee Chine ak àdduna bi ñi nga xam ne am na nañu ëpp nañu euh, quarante mille cas ñoo ngi ñoo ngi ci biir àdduna aujourd'hui ñoo xam ne am ko. am na ñaar fukki réew ak ñeent yoo xam ne gis nañ fa feebar bi mais sant yàlla ba léegi am na ay dëkk yoo xam ne ñëwagu fi fu mel na Afrique ñëwagu fu mel na Amérique du Sud ñëwagu fa te yenn pays Europe yi itam gu fa. feebar bi nag moom li ñu si xam mooy mën na bu xasee ba dégg nit ki dina la def lu mel na grippe li wolof di wax grippe da nga sëqat sa bopp dina metti di nga am yaram bu tàng waaye li mu koy wàllantee mooy souvent boo tisolee wala sa loxo taq lu xaw mel na ndax it mën nga ko jox nit ki. Euh, li ñu gis itam mooy téeméer boo bu am feebar bi ñaare ñaar laa lañ si gis mu mu mu mën a rey feebar bi mën nga si ñu bare dinañ ko am ba jóg wér bare na moo si ëpp sax. Mm-hmm. waaw loolu la mën a wax tey ci feebar bi. Mm-hmm. mu doon loo xamante ni lu bees la ñu dégg ko mais mu mel ni xaw na jaaxal tuuti nag euh, ñi nga xamante ni tey ñoo di réewu chinois. waaw li nga wax am na ci solo trop mooy bees bees bi. Mm-hmm. xam nga feebar bi bu mu demee ñaari weer ci gannaaw. kenn xamutoon feebar bi. Hmm. mën nañu bi weewu decembre di di di dee si la nit ñi commencé gis nii am na lu xew seen lu fa bees ñoom ñu woo OMS wala yëgal leen ni am na ay nit yoo xam ni feebar bi ñu fi gis dafa mel ne lu bees la. bi ñu ko gëstoo ñu gis ne benn virus bu tudd coronavirus moom moo koy joxe. Hmm. coronavirus nag du virus boo xam ne bii euh, amutoon si àdduna bii xeetu fe xeetu coronavirus bi moo bees hmm. waaye am na yeneen yu am yu am si àdduna léegi bi ñu ko xasee ba xam. loolu mën na ni mi janvier janvier bi passé si la nit ñi commencé xam loolu nga xam ne bu nekk dafa nekk feebar bu bees euh, il faut ñu xam ko tuuti balaa ñu koy gën a mën a xeex waaye tey chinois yi ñoo ngi si def liggéey bu am solo euh, parce que seen dëkk bu naan Ubey boo xam ni fu tudd Wuhan la nekk mhm. foofu la feebar bi dooree law seen dëkk ba pare dëkk yi nga xam ne dañu jegante ak ñoom mu commencé fa law mhm. waaw mu jaaxal chinois itam ñoo ngi ci wane benn kàttan bu mat wan ci xam-xam bu mat mais bu xamal sunu doomu Sénégal yi mooy Chine dëkk bu mag la. dëkk boo xam ne bii ñu seen xam-xam màcc ci wàllu liggéey yooyu la. et tey ñoo ngi si def jéego yu am solo. Mm-hmm. Euh, OMS di leen si jàppale réew yëpp di leen si jàppale. Mm-hmm. waaye ku nekk itam fa nga nekk yaa ngi fay fagaru. d'accord alors mu bokk tey jii nii ci OMS. li nga xamante ni déclaré nañ ko alerte la international mais Sénégal tey Institut Pasteur bi ñu nekk dajale ngeen ay réew yu Afrique yu ci bari nga xamante ni dafa jëm ci ngeen échanger mais fexe ci loo xamante ni fàggandiku la par rapport ak li nga xamante ni moo di coronavirus. waaw euh, li am xam nga bu yu demee nii OMS bi nga xam ne moo war a aar wér-gu-yaram nit ñi day xool fu xam-xam màcc ci ku nekk ci Afrique ku mën a jàppale xeex bi bi ñu ko seetee danoon ni fii Sénégal Institut Pasteur. ak beneen euh, laboratoire bu nekk Afrique du Sud ñoom ñu gis ñu mën a def euh, saytu feebar boobu donc bi ñu ko gisee ñu ne ñu non seulement yéen képp ku nekk ci Afrique bëgg a testé mën leen yebal ci yéen waaye li am solo itam mooy dëkk bu nekk ku nekk mën def liggéey boobu moo tax ñu dajale fii fukki réew ak juróom euh, semaine bi ñu passé pour ñu tàggat leen ci wàll boobu ba pare ñu waxtaan suñu biir pour xam nu ñun tamit tàggatee ñeneen ba réew Afrique yëpp daj pour que saytu jumtukaayu saytu yi daal di yemb ci dëkk yooyu li tax mu am solo mooy bu xasee feebar bi duggee ci benn dëkk day am feebar yu bare yu muy nirool mais de laboratoire mooy jël feebar bu wane nag am boobu la bu jógee Chine la wala beneen la moo tax Institut Pasteur ñu tàggoo si loolu parce que nag loolu dafa yàgg fii euh, Institut Pasteur dafa yàgg liggéey si lu mel ne Ebola wala Zika liggéey boobu macha allah fi dañ fi am ay gëstukat yu xarañ yu mën liggéey boobu ba àdduna fu ne lañ leen di laajte ñu fay dem am aussi euh, ci jamono yële pour Zikal dem noonu sax ba Amérique du Sud Brésil ñu jëlee leen fa pour ñu jàppale yooyu Afrique bi tey nii euh, bu boo jëlee dëkku Afrique nag juróom fukk ak ñeent mun naa ne Institut Pasteur jàppale na si gën caa néew euh, ñeent ñeent fukk yi moom dem nañ fa jàppale leen wala ñoom ñoo ñëw fii di gëstu si Sénégal. Hmm. dafa benn ndaje bu nga xamante ni amoon na ci ngeen sos lu demee ni alerte tey conclusion yi ñu mën a tiire ci ndaje moomu lan la woon. waaw alerte li ko tax a jóg mooy bu amee épidémie ñu profiter si épidémie pour gën a xam feebar yi parce que souvent feebar dana ñëw ba dem bu amul ñu koy gëstu xëy na duñ fa jëlee dara. léegi alerte la ko tax a jóg li ñu li ñu jàpp ni euh, ci suñu réunion bi ñu fi amoon mooy alerte am na doole bu bare bu mu indi ci dëkk yi. ci wàll woowu ñun institut Pasteur dañu jox lépp ci wàllu laboratoire ñu féetee ko parce que alerte day xalaat ci affaire nuy toppatoo nit ku feebar ki day xalaat ci affaire na nañu aaree nit ñi ku feebar jóge si nit dem si nit day xalaat itam nan nanu bu amee benn garab bu bees na nañuy saytu na am garab bi baax na yooyu yëpp alerte da ko def et li tax aussi alerte ñu tegoon ko mooy feebar yu mel nii bu amee nekk bees ñu seet ku nekk ca dëkk ba nga nekk nooy taxawoo ba xam am ci wàll boobu ci fan yi ñu néew ñu passé ñaari fan yi si gannaaw waxtaan waxtaanoon suñu biir ak ñu nekk alerte yëpp ba am na ay pexe yu ñuy teg pour que feebar bi bañ fi ñëw wala bu fi ñëwee bu amee ay garab yoo xam ne yii ni ñaa ngi koy test si jamono yi ay Chine ñu mun a xool na am loolu mun a dox fii pour que ñun tamit lépp lu bees lu génn ñu mun ci am alerte moom looloo ko taxoon jóg. alors docteur tey institut Pasteur référence la mais li ñu bëggoon a jàngat comme tey yéen a ngi ci ay recherche yéen a ngi ci surveillance. yéen a ngi ci santé publique euh, tey bu ñu doon xool évaluer un peu système de santé des pays africains lan nga ñu ci mën a expliquer. waaw xam nga boo Afrique moom da ngay wax benn continent. wax naa ko sànq juróom fukki dëkk ak ñeent euh, ñëpp yamanu am na ñoo xam ne ñuy wax dëgg yàlla. te gëm naa ni Sénégal si ñooñ ci ñooñ la bokk boo xoolee seen système lu bare taxaw na fa du ñun rek ñoo ko wax c'est que tey boo xoolee ci réew yi dafa am lu ñuy wax benn évaluation boo xam ne bi te nu bëgg xam ne am dëkk yi dañuy am dañu dañu mën a ils mm-hmm. waaw ñooñu ñoo doon Sénégal te si yu bare yu ñuy liggéey ñoom wane na noonu li ñu fi gis vraiment doy na xel mm-hmm. donc mais Afrique yëpp yamul am na ay dëkk yoo xam ni jarul ñu yegg ci ay tur tey xëy na ñoo gën a néew doole ak yeneen i ñooñu seen ay jumtukaayu santé wàññeeku na moo tax nag yu demee nii bépp dëkk bu barewul doole dañu war a jàppale ko tey si dëkk ñuy tàggat ñooñu ñu bare am na ñu ñëw ñu nu jàngal ñoo xam ne ñi ñooñu euh, seen doole bu barewul bu fa kaa duggee dinañ ko mën a am parce que fi doole barewul la feebar bi gën a mën a law yomb si. Mm-hmm. alors buñ la déggee nii est-ce que le Sénégal peut faire face à d'éventuelles épidémies. waaw c'est-à-dire boo xoolee Sénégal épidémie moom du yàgg na fi am Ebola jaar na fi gis nga ni ko taxawoo macha allah ñëpp taxawu si mu nekk liggéey bu ñëpp bokk def ko euh, am na yeneen feebar aussi fi jaar am na nañu benn système de surveillance bu fi am boo xam ne bi yàlla dimbaloon dañ si ànd ak ministère de la santé institut Pasteur ba fépp fu épidémie am ci fan yi néew ci Sénégal mën nañ ko gis ba pare jóg si loolu lu am solo la si réew la parce que loolooy gën a aar nit ñi li tax duñ ko dégg lu bare nag c'est que léeg-léeg balaa nañu di yëg ne am na fi fekk na yi si saafaran ko wala li ñu si waroon def def nañ ko loolu dafa am solo loolu rek nag surveillance rek yorewul dëkk dafa am système de santé dafa am yeneen yu muy àndal ci wàllu laboratoire par exemple wàllu institut Pasteur mën naa ne si sant ci épidémie ci wàllu vraiment yu bare fii yemb na fi mat na fi li ma la mën a waxee rek am na ñoo xam ne nii macha allah fu ne la leen di ci àdduna te loolu moo mën a ci wàllu laboratoire bi moom mën naa ni côté boobu moom pare nañ ci wàllu épidémie yi yeneen wàll yi nag li ma si xam mooy nit ñaa ngi ci def ay jéego yu am solo parce que wàllu xeex épidémie du fe du xeexu benn fan rek saa da am foo tollu déwén nga gën a dëgëral rek lépp actuellement lu ñu xamoon ci Ebola tey mën naa ni yokku na xam nga bi ñu Ebola ñun da nga Ebola dëkk yu bëri dafa dugg ba noppi ñoo di wuti jumtukaay tey balaa corona di ñëw jumtukaay yi yemb na ñoo ngi taxaw fi loolu di avancement. Mm-hmm. boo xoolee corona ak Ebola ni leen di xeexee yu bare am na lu mu niroo fa ngay dence nit ñi fa ngay aaree ba ñu am quarantaine yooyu yëpp ay mécanismes yoo xam ne lii am na yu bëri yu fi am déjà yoo xam ni dañ ko gën a yokk dañ ko gën a renforcer loolu mooy njëriñu. Euh, di defar mais nag dafa moom ci wàllu épidémie du jeex mhm. te kenn mënul dafa ban la moom fi mu nekk nii dara du fi xew mhm. mais li ñu mën a am mooy njort bu rafet euh, préparé ba pare nag euh, une fois que ñu préparé ànd ak ñu nu wër lëkkaloo ci préparation bi parce que ñun mën nañu pare waaye bu suñu ñu nu dendal bu nu pare itam mën na jaar dëkk fa mhm. mooy waral ñu ñuy lëlu fii di waxtaan ak ñu nu ko bokkal pour que lu dugg foofu bañ a yegg si fii itam bokk na ci tey Afrique buñ ko waxee rek dañuy faral di wax ni wàllu feebar daf fi yomb waaye d' autre part ñu ngi faral di am yenn saay sax di tooñ naan africain virus du ko rey euh, tey bu mu jàngatee li nga xamante ni moom mooy euh, bu ñu waxee ni ay pays la yoo xamante ni euh, pauvreté mën nañ ko fi nemmeeku vulnérabilité loolu mën na ko daal di jur par conséquent est-ce que mënuñu ni développement virus yomb na fi. waaw développement virus daf fi yomb parce que yu bare yu fi am. loolu la virus bëgg moo di xam nga bu lu mel na assainissement mhm. ça veut dire yoonu ndox euh, bu dee demul ni mu war a dem day bari yoo bu fa yoo amee yoo yooyu mën na am virus euh, boo xoolee itam yu bare ci ay mala lay nekk virus jóge si mala ñëw si nit mhm. Afrique am na ay mala yu bare yu fi nekk itam euh, am na pauvreté itam mooy tax nit di jegenteeg mala ci wàllu dëkk mhm. wala ci wàllu àll yu bare <coughs> yooyu moom lay tubaab di wax ay conditions yoo xam ne day favoriser ko euh, feebar am mm. yooyu mooy tax virus mën a bare mais système de santé itam bu mel ni ma war a mel loo xam ni lu tuut la waroon nekk mën na gën a law mm-hmm. yooyu moo tax Afrique dañ fi bare ay dëkk yu xaw demee noonu moo tax souvent da ngay dégg mën nga ni Afrique tey boo jàppee at bu nekk dina xaw lu mel ni téeméeru épidémie yu am ci dëkk yi nu wër ak euh, yi fi am mm-hmm. loolu moo ko waral mais suñu système santé def faible mais nag am na dëkk yu bari yu mel boo xoola OMS tey quatre-vingt pour cent li muy liggéey ci Afrique la ak Moyen-Orient. alors bokk na ci sànq yaa ngi tudd lu jëm ci wàllu épidémie épidémie tey à la différence de pandémie c'est le contexte qui le détermine. waaw c'est-à-dire que boo nee épidémie en général dafa nekk loo xam ne dafa xaw yem géographiquement. pandémie mooy lu law ba génn dëkk yu bare bay bëgg ma wëral àdduna. Mhm. loolu li koy déterminer effectivement li nga wax la contexte la c'est-à-dire que tey am na benn épidémie yoo xam ne bu xewee tey dugg ci hôpital bu dee hôpital boobu ni ñu koy doxalee amul benn problème mën na bañ a génn hôpital waaye bu dee hôpital boobu nañ koy organiser doxul moo tax muy law ci dëkk yi nga xam ni yii stérilisation bi demeewul noonu wala ni ñuy suuree ni ñuy àndul ak sécurité parce que ku nekk état bu mu nekk mën na indi wàllante loolu jóge ci hôpital bi dugg ci dëkk bi ni ñuy voyage waaw loolu li koy indi souvent itam adduna dafa soppeeku. tey man mën naa euh, fanaan mën naa fanaan fii yeewu dugg avion suba ma yeewoo Chine ma ma yegg Chine. loolu am doon si jamono njëkk nga xam ne lu nekk Chine day gaaw a ñëw fii lu jóge fii aussi mën na dem Chine. loolu lii li euh, lu am solo ci àdduna la loo xam ne lii dañ ko war a bàyyi xel pour affaire épidémie mais épidémie rek euh, dañu war a xam ni jamono ni mu soppee ko day tax épidémie du ñàkk. Mhm. li ëpp solo mooy di fagaru. moo tax wàll woowu ñun dañ ci war a jóg bu baax sànq da nga tudd recherche ma wax la wax aussi vaccin. li ëpp solo mooy ci wàllu jumtukaay ñun ñu yembal lépp Institut Pasteur fi mu nekk nii par exemple ci wàll woowu mu ngi tabax benn usine boo xam ne bi defar ay ñàkk yoo xam ne ñun Sénégal dinañ dinañ dinañ ko mën a jëriñoo waaye dina wër aussi dem àdduna bu bare. Mhm. àdduna nga xam ni ëllëg aussi bu ñu soxlaa façon ñàkk yooyu. au lieu ñu koy wuti feneen dana nekk fi suñu dëkk bi mhm. liggéey bu mel noonu itam ñoo ngi koy def pour euh, ay jumtukaayu saytu li ñuy wax test rapide yi li nit ñi di utiliser pour sibiru waa TDR yi kooku ñoo ngi si ñoo ngi defar ni benn plateforme boo xam ne incha allah fii léegi euh, fin d'année bi euh, dana dana pare te bu paree li muy indil mooy tey bu ñu soxlaa test yu demee noonu au lieu ñu koy wuti feneen dañ koy def fii loolu lu muy indi mooy dalay jox autonomie cest à da ngay moom sa bopp ci wàllu jumtukaay nga xam ni tey au lieu ngay dem wuti mbir mi ñu ngi fii sa buntu kër. Mm-hmm. ñu demee noonu nag ñun loolu la liggéey pour que lépp lu wàllu Afrique wala feebar boo xam ne Afrique la nekk nga xam ni peut-être euh, ku nekk bitim réew du loolu mooy intérêt dëkkam. Mm-hmm. ñun li nekk suñu intérêt dëkk ñu taxaw si. alors accessibilité. géographique bi wax nañ ko bu fekkee ci localement lañ koy defaree accessibilité financière bi comment ça va se waaw accessibilité financière xam nga moom euh, li am solo ci lépp looy def ci wàllu liggéey mooy ni nga amee xaalis bi ak loo si jublu. Mm-hmm. yu bare yi ñuy liggéey Institut Pasteur li ñu gën a war a xam ni fondation la euh, et fondation boo xam ni euh, liy tubaab naan ab but non lucratif ça veut dire que lépp bénéfice boo am du da koy jox ay nit ñu moom mbir mi. mais da nga koy delloo ci liggéey bi. Mm-hmm. loolu li muy indi mooy tey par exemple ñu bare ñuy wax wàllu analyse Institut Pasteur. mais ku ñoo def analyse institut Pasteur bépp bénéfice bu ñu ci am dañu jël xaalis boobu tàggat si ay nit wut si ay jumtukaay pour lu mel ne corona bu amee. Mhm. ñu mën a taxaw ni nu war a taxawee. tey Sénégal bu nu ministère la santé wooy ni ah am na fii lu mel ne dafa am corona bu ko indee test boobu bu ñu koy def test boobu nit ki du ci fay dara. looloo tax ñu mën a def loolu tey bu ne ñun dañuy defar wàllu jumtukaay yi mu lay wax comme TDR yi. xaalis bi nu mun a jëlee feneen la ñuy investir pour ko jumtukaay yooyu mën a nekk jumtukaay yooyu si jublu mooy dëkk bu nekk mën ko am. Mm-hmm. accessibilité financière wu test yooyu wala vaccin yooyu dafa dañ ko nar yombal parce que tey vaccin yi ñuy def fii ñun boo gisee li dose bi di jar boo ko jëndee woon feneen dana gën a cher trop trop trop li tax loolu c'est parce que fii koy produire def conditions yi pour mu accessible ñoo ñëpp du ñun rek ñoo koy déterminer parce que ñoo koy waxtaanal. Euh, lu mu mel la UNICEF mu mel la OMS da ngeen di ànd pour que mu nekk lu accessible population yi parce que li ñu xam ci wàllu wér-gu-yaram mooy accès bi def ci ëpp solo te ñun loolu tax a jóg nekk mu fi pour di wut xaalis boo xam ne pour def ci ay poste la xaalis bu ñu liggéeyee la pour santé publique nit ñi loolu dafa am solo nit ñi comprendre ko. alors kon lan nga mën a tontu ci ñi wax ni euh, analyse yi dafa cher. waaw xam nga fi boo ñëwee ñu analyse dafa cher bu ma mënoon wax ci ci bu ma bëggoon tënk da nga naan fi boo ñëwee def analyse amaana di nga fay pour wér-gu-yaram waaye aussi yaa ngi investir pour ëllëg bi bu épidémie amee institut Pasteur taxawal la c'est comme si boo defee fi analyse yaa ngi wut fayaale benn assurance pour avenir institut Pasteur day yëngatu si wàllu social lu bare institut Pasteur day yëngatu si wàllu vaccin lu bare tey nii itam ci wàll yu bari am na ñoo xam ne nii insuffisance tey bu épidémie yi dañu taxaw pour que feebar bañ a law loolu bu mu amutoon luy jóge ci analyse yeeg luy jóge ci ay vaccin du ñu ko mën am taxawaay boobu moo tax mu am solo ni ñu comprendre ni dëpp nga dafa seer benn bi assurance la pour seen bopp parce que ñun xaalis bi laboratoire d'analyse yu bare seen xaalis yi dem si poche ñu moom labo d'analyse bi mm-hmm. ñun alal jooju ci sart yi tënk def institut Pasteur dafa war a dellu ci gëstu former ay doomu Sénégal pour ñu gën a mën a liggéey pour ëllëg si biir bu leen soxlaa ñu xarañ ci wàllu recherche ba pare nag lépp luy wàllu épidémie wala lu demee ni surveillance ñu taxawal ak ministère de la santé ay jumtukaay pour aar dëkku Sénégal loolu dafa am solo ni ñu comprendre ko ñaareel ba li am aussi solo pour ni ñu comprendre ci wàllu activité analyse yu cher c'est que qualité boo ko bëggee ci loo xam ne lii doo ko liggéeyee senegal mm-hmm. ci loo xam ni appareil yi koy def bitim réew lay jógee euh, réactif yi bitim réew lay jóge yu bàyyi bitim réew lay jóge produiruñ ko fii Sénégal foog mu am aussi lu mu jaar mm-hmm. moo tax loolu moo tax léeg la yenn yi njëg yi di cher waaye seeraay bi boo wëroon Sénégal yëpp nga xool kuy def niveau qualité ak réactif yooyu gëw ma ni di nga gis ni koo xam ne kii moo gën a moins cher D'accord. Alors maintenant le délai d'attente des résultats ça dépend euh, ci test bi wala ci lan la dépendre. waaw délai d'attente ce qu'il faut savoir mooy ci parce test bi muy def bu amee benn fan ñaar li si ëpp du ko paase. Uh-huh. maintenant li am nag mooy dafa am ay test yoo xam ni dafa dépendre ci li ñuy teste uh-huh. te mi ngi mel la tey lu mel la bactérie moo di benn doomu jàngoro. bu ñu bëggee seet nawet dañ koy am tant que toogoo ñetti fan doo mën a xam est-ce que bactérie bi mu ngi fi wala newu fi kooku mm-hmm. bactérie bi si boppam doomu jàngoro bee ko laaj mm-hmm. maintenant am na yoo xam nag ay analyses yi ñu laaj yoo xam ne inspecteur daf ko teg parce que amul fii Sénégal uh-huh. te dafa néew boo xam ne bi bu nu ko fi deful nit ñi duñ si jot donc li demee noonu ñu lay préféré jël analyse yooyu pour nit ki yónnee ko bitim réew ñu def ko boo leen defee ñu delloo ñu résultat bi comme ça nit ñi mën si jot plutôt ko nit ñi débrouiller seen bopp pour def analyse boobu mhm. loolu nag des fois du dépenser ñun laboratoire bi mu jëm ñooy mun ni ah ñun léegi mën naa ko def si dée bu demee nii parce que ñoom aussi fan koy defee souvent spécialité yooyu ou day rare mhm. wala day demander temps boo xam ne bii moo kay tax mu yàgg mais du ñaare du suñu coobare li arrivé souvent bu nit amee soxla bu taxaw bu jàmp si wàllu feebar souvent na dañuy woote góorgóorlu ba ñooñu def si aussi seen kéemtalaay kattan pour mu ñëw mu gaaw. d'accord alors revenons un peu à l'actualité pour parler du coronavirus en Chine gis nañu ni euh, am na ci yenn ci ay réew yoo xamante ni Afrique docteur ñu koy wax amagu fa naam yi nga xamante ni demee na ni Amérique latine aussi suñu ko fa mais am na ci réew yu nga xamante ni tey xaw na leen a tamit euh, laal sonal leen. ba xam tey jii nii ñooñu am ngeen ci loo xamante ni mën ngeen ko ci jàngat tuuti parce que xool nañu tranche d'âge bi nga xamante ni moo nekk Chine gis nañu ni laalul ñi nga xamante ni ndaw ñi la mais en général plus de cinquante ans yi lañ ciy gën a gis le nouveau cas nag moom mooy un bébé qui a infecté à la naissance. waaw c'est-à-dire que épidémie moom bu bu si feebar mel bu bees nii li mu laaj. mooy lépp lu bees lu mu gis ñu décrire ko ñu jéem si jàngat épidémie d'une manière générale. boo ko xoolee da ngay xam fan la amee ñan la dal ak euh, ci ban diir la leen dal. loolu ñaare boo ko analyser na la wax épidémie bi nan la koy nit ñi dañuy wàllante wala duñu wàllante wala loo xam ni yoo koy joxe joxe wala nu muy jaaree si nit ñi actuellement effectivement souvent ci épidémie bu nu gisee xale bu juddu bees dañuy njort ni ah xëy na est-ce que du ci yaayam la ko jëlee. wala dafa euh, daf ko judduwaale. la mère était la waaw ma ni loolu moo tax ma ni may may wax ni que bu bu bu jógee ci yaaju feebar day day njort ni ci yaay ji la jóge mm-hmm. loolu ça veut dire lu bees la ñu xam ci virus bi mais da ko war a confirmer. parce que mm-hmm. benn kaar rek taxul nga mën a basé wu ni lool la. moo tax gëstu dafa am solo bu amoon tey xale yu bare yu infecté dañuy xool ak seen yaay la jóge wala seen environnement. Mm-hmm. moo tax ci cas boobu li nu mën a am mooy am njort boppa nag njort boobu ñu koy topp. Euh, mooy li ñuy wax hypothèse ni lii kat ci yaay ji la jóge ñu analyser est-ce que bi jóge ci yaay ji bi jóge ci doom bi benn la noonu na ñu koy gëstoo en général mais li ma mën a wax mooy loolu information bu am solo la dañ ci war a bàyyi xel ba pare topp alors beneen bi mooy xool nañu ci ay gëstu ñu ni yaa ngi koy wax sànq feebar bi feebar yi naan zoonose de l'animal à la personne tey xool nañu lu demee ni pangolin ñu ni kat jàpp nañu ni xëy na lii feebar bi mën na jóge ci moom waaw c'est-à-dire que li ñu war a xam mooy tey feebar bu dee ñett ci àdduna ci wàllu épidémie ñaar ñi ci mala lay jóge xamuñu mala bu nekk ci biir kër gi walla mala boo xam ne ci àll lay nekk loolu li muy indil mooy tax nit ñi léegi bu ñuy xalaat ci wàllu épidémie xalaatuñu rek lu feebar bu dal nit ba dañuy xool feebar bi dal mala xel feebar bu nekk ci environnement moom la ñuy wax une santé anglais ah, naan ko one health léegi boo xoolee euh, Chine eh, bi affaire bi dooree dañu njort ni ci benn marché la jóge boo xam ne dafay jaay ay mala léegi loolu bu amee dañuy seet mala ya fa nekk waaye ñu seet ku xam si ñoom la ban mala la mën a nekk ñu teste est-ce que virus bi nekk si nit ñi ak ci mala yi benn la léegi bu ñuy seet yooyu dafa am ñu gis ni pangolin gis nañ ci virus bi waaye nga gis ko fa benn yoon taxul mu nekk ni moom mooy li ñuy wax réservoir boo xam ne virus bi bu épidémie nekkul fa lay nekk loolu dafa am ay critères yu bari yu koy déterminer critères yooyu benn bi si mooy nga fekk ko ci ñaareel ba mu bañ ko feebar ñetteel ba nga wane ci benn laboratoire ni kii mala boobu bu boo xam ne bi amul feebar bi boo ko joxee feebar bi dina mën a gis ni moom dana transmettre feebar bi te moom boppam mm-hmm. du ni ñu nekk lu tax pangolin mën naa wax tey lu ñu la ñoo ngi si liggéey mais wóoragul ni moom moo koy joxe xëy na mën a bokk si ñi koy joxe mais xëy wóorul cent pour cent ni moom moo koy joxe am na yeneen yu mel nañ dugub ñoo ngi leen di seet itam ci jamono yi mais li ci am solo rek mooy boobu moom lu ñu mën li tubaab naan seen piste sérieuse bu ñuy xool mooy am solo parce que loolu bu nga xamee bu ñu xamee fi muy jóge tax ñu mën ko aar ni ah lii de bëgg nañu lekk parce que faram feebar truc wala boo koy lekk na ko togg ba li si nekk doomu et cetera et cetera uh-huh. alors docteur ñu ngi am jàngat jël ay kàddu yi nga xamante ni mi ngi jógee ci Tedros Adhanom mi ngi ndoon euh, directeur général OMS mu wax ci lu jëm ci wàllu vaccin bi ñu mën ko xaarandi fi léegi di euh, dix-huit mois di fukk ak juróom-ñett ci ay weer sa jàngat ci loolu waaw jàngat bi ci wàllu ñàkk bi moom lu am solo la liñ ci war a xam rek mooy ñàkk moom dañuy gis ku feebarul ñu ñàkk ko pour aar ko ci feebar bi donc li ñu koy ñàkkee itam ah dañ koy defaree ci feebar bi moo tax dañ ko war a seet bu baax ba mu woon ni sécurité bi mat na donc defar ñàkk bi dafay jël temps mm-hmm. ni ngay évaluer ba la nit ki bu ko jëlee du si jëlee loraange aussi dafay jël temps looloo tax mu ne 18 mois na nit ñi yàkkamti nañu mais tey gëstukat yi gën a xarañ ci àdduna ci wàllu ni ñu defaree ñàkk ñoo ci mm-hmm. moo tax ma yaakaar ni xëy na 18 mois bi mu wax mën na fa yàgg mais mën na ko gën a ne wala mën na ko yokk tuuti moom fi mu toll ni estimation la mën a joxe. Mm-hmm. mais 18 mois ku xam ni dafa def vaccin du nekk loo xam ne da nga naan yàgg na nga naan sax euh, nit ñi dinañu góorgóorlu pour mu gaaw. Mm-hmm. Institut Pasteur vaccin contre euh, fièvre jaune c'est acquis. waaw vaccin contre fièvre jaune moom tey moom macha allah kooku moom ñëpp d'accord na ni mën na mën na Institut Pasteur mën na ko te mi ngi koy def loolu moom amul problème li def comme li ma doon wax sànq. li nu mun a produire ak production àdduna yëpp boo ko boolee doyul. Hmm. moo tax ñuy dem jam ñaar di fa defar benn usine boo xam ne bii dana mun a yokk capacité yi ba ku ma ku si bëgg jot jot si. Hmm. fii bu la jaan màttee vous êtes le seul. à pouvoir faire cela joxe antidote bi. ci wàllu euh, antivenimeux ñun daan nañ ci liggéey mais jamono yi liggéeyuñ ci antivenimeux. parce que jaan màtteetul. <laughs> jaan a ngi màtte mais euh, wàllu luy faj jaan. dafa laaj ay jumtukaay yoo xam ni yu bari c'est très difficile à mettre en place moo tax jamono yi ñoo ci xalaat mais fi mu nekk nii jamono yi ñun defuñu ko. d'accord alors am na ci ñoo xamante nii jot nañ ko ndaxte coow lu bari na coronavirus euh, def na benn tole benn business la. lan la ciy tontu par rapport ak li nga xamante ne am na. waaw cest dire que loolu waxtu mooy dëgg souvent la bu feebar jotee rek ñu ni business la que ni ñuy indi fii waa bitim réew yee créé feebar bi ci xam-xam bi ma ci am man lu bari si loolu teguwul ci luy dëgg euh, li am ba am mooy tey nii am na feebar bu xaw gëm naa ni feebar bu bees la li ko indi li ko sookee moom mooy dafa am fu mu jógee nit ñaa ngi ciy xeex mais gëmën di wàllu xaalis a tax nit ñi di tax feebar bi am mm-hmm. loolu du wax joo xam ni moom pour man dëktu dëktu na mm-hmm. li ma mën a wax mooy toujours nga dégg ko waaye ñii liggéey jëm ci wàll woowu du souvent du xaalis ren tax a jóg mm-hmm. parce que xaalis mën nga ko am si anam yoo xam ne yii dana gën a yomb nga ngay jël benn feebar di ko lawal waaye léegi nag du ñàkk ci ñi fay liggéey bu feebar amee mu am xaalis bu nekk ñoom parce que loolooy seen liggéey. waaye gëmën looloo sooke mbir mi. d'accord alors bokk na ci li nga xamante ni mooy les dernières informations ñu am ambassadeur Chine bi nga xamante ni moo nekk Dakar jot na euh, conforté propos yi nga xamante ni président de la république Macky Sall wax na ko ni mënuñu rapatrier ñi nga xamante ni ñoo di suñu doom yi nekk foofu noonu treize étudiants ñi ngi fa psychose bi dafa installé wu chez leurs tey ñu bëggoon xam. seen sécurité rapatriement bi la fii wala tey ñu nekk foofu noonu avec le système de santé chinois bi nga xamante ni xam ngeen leen parce que am ngeen institut Pasteur bu nekk en Chine. waaw c'est-à-dire que bu wax ji dafa am ñaari élément mhm. ci wàll yi nga xam ni moom président de la moo si wax wax dëgg yàlla élément appréciation yi muy am ba wax li muy wax man mënu ma ci sore parce que président la République dama yaakaar ne buy wax am na ay élément précis te man bëgguma si dugg parce que benn ministre bi wax na si ñaar ambassadeur chinois wax na si ñett ñi ko teewal ci gouvernement wax na si ba du wax joo xam ni bëgg naa ci sore ñaareel ba mooy li nga wax mooy institut Pasteur bi nekk Chine ñoom dañuy jekkoo jokkoo ak ñoom toujours li ma mën a wax mooy ni ñu xarañ nañu foofu lool liggéey bi tey mun naa feebar bi ci àdduna ñu ko gën a xam mooy chinois yi moo tax ma ne si li ma information yi ma yëg euh, ñoo ngi def seen kéemtalaay kattan pour feebar bi bañ a génn Chine te fa am Chine jël leen en charge de façon à que lépp loo xam ne dafa nar poser problème ñu faj leen si. waaw loolu laa si mën a wax te bëgguma ci sore ci wenn wàll bi parce que xaw ma ko. docteur le message. jërëjëf waaw message bi li may wax rek mooy wàllu épidémie moom dana war a xam ci àdduna léegi euh, jamono yooyu rëpp wax nañu waxu appel urgence internationale bu Ebola. Mhm. Euh, léegi nii ñoo ngi wax coronavirus épidémie dafa nekk loo xam ne nii dëkkin bi demee léegi du ñàkk muy am ak li am solo mooy li institut Pasteur yi def nii ñu fagaru ba mu bañ di ñàkk ci réew mi. lépp li wàllu jumtukaay yi faj nit ñi ci wàllu diagnostic ci wàllu vaccin ñun ñu góorlu ci wàll Afrique ci wàllu Sénégal ba jumtukaay yooyu yemb ci ñun ñu am maanaam dañoo autonomie. autonomie boobu li koy indi mooy xale yi nekk fii ñu leen di tàggat Institut Pasteur di ci di ci def di ci bay waaram mooy itam recherche bi ni ñuy def te suñu gëstukat di si bay seen waa mooy aussi analyse bi ni ñuy ñëw def si fii bu ñu ko defee day permettre lépp lu si rus ci wàllu koom-koom jàppale itam yeneen liggéey loolu daal laa bëggoon tamit di remercier nit ñi parce que Institut Pasteur institution bu ñëpp def confiance la mm. buy wax ne institution boo xam ne Sénégalais yaa ko moom euh, li li si ëpp solo mooy lépp lu mu tax a jóg mooy di aar sénégalais yi ci seen wàll wér-gu-yaram di tàggat suñu doom yi pour ëllëg ak si biir ñu a am problème ci wàllu wér-gu-yaram. d' accord kon mbokk yi ñu sant leen gërëm leen docteur Amadou Alpha Sall lañ doon recevoir nekk administrateur bu euh, institut Pasteur de Dakar doon waxtaan ci actualité dégg ngeen li nga xamante ni moom lañ ci joto waxtaan dégg ak topp suñu borom may ñu ko ci yeneen jamono ñu ñëw ak ci beneen numéro urgence ñu ngi leen di sant di leen gërëm.